Aujourd'hui, nous, on prend toutes nos responsabilités en tant que collectif. On prend toutes nos responsabilités en tant que des citoyens qui, aux côtés du peuple sénégalais, ont décidé aujourd'hui euh, de se rassembler pacifiquement au niveau de la place de l'indépendance. Et nous appelons tous les toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais, comme annoncé, Inch'Allah, à venir massivement à la place de l'indépendance euh, dans le cadre de ce rassemblement pour exiger que le gouvernement revienne non seulement sur cette mesure, mais pour exiger aussi que nos camarades soient libérés. Et en faisant cela, nous exerçons un droit constitutionnel qui nous confère, la Constitution nous confère le droit de manifestation pacifique, de rassemblement pacifique, avec comme seule exigence de déposer une lettre d'information préalable, que nous avons fait s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a violé la Constitution, c'est pas Ce n'est pas tous ces Sénégalais qui seront à la place de l'indépendance de façon pacifique qui auront violé la Constitution. c'est l'autorité, encore une fois, qui viole nos lois, qui viole la Constitution. Nous respectons da ngay joxe le bon exemple moo tax depuis le lundi déclaré dem ñu ji ñaanuñu dañoo yëglu ji ne dinañ dem si ñaari ñaari place muy place d' indépendance ak place de l'Obélisque pour doxu ñaxtu ñu bàyyi benn place bi suñuy suñuy yaay suñuy maam nga xam ne ñoom ñoo ñëwoon te tey dinañ ñëwaat bu bëri ñu leen ndaw tam ñun dem fa nga xam ni suñu place fa nga xam ni suñuy suñuy papa démb woon nañ fa ay pancarte te dara fekku ci ñun tam ñu am suñu suñu droit suñu yelleef ñëwaat ci place boobu ñëw wax ni les ñu waxoon bi passé les bi courant yi duñ ko yokku waaye suñuy frère dañ leen bàyyi ñu ñëwaat waxaat ko foofu ba si anam respectueux parce ñun nous respecter institution Mais, nak fekke nak ñi nga xamni ñun ñoo leen jox suñu suñu suñu suñu suñu am ak fayda institution jël ay ay dogal Les places nga suñu may nañu nit ku nekk chaque sénégalais gàddu woo dara waaye sa xol nga gàddu sa làmmiñ pour wax lu la metti mën nga ko waxee fu la neex ñu dégg le préfet ne dañ ko ñaan ñaari mbir ñaanuñu dañ ko yëgal ñaari mbir ñu te gis nga ñaari place yooyu ñu ko wax suba na xalaat na na pare ñu jox ko ay place yu bari ci Sénégal nekk nañ fa taxaw ñax